sëñ Mamour Ndaw mi sama waaw moo dellu si waat liggéey bi loolu mu baaxoo woon mu indil ko sëriñ bi fa am sotle sëriñ bi lool si liggéeyu Cheikh bii mu nekk ndax dafa mel ni rek képp ku fi toogal Cheikh Fall suñ borom dana am ñoo xam ne da leen di tànn tàggat leen ngir dooleel leen ndax ñu feeñal seen yéene ak seenub liggéey moom mi nag daa mel ne sunu borom boole na ko si nga xam ne am nañ yéene yi ànd ak yow liggéey bi te taxaw si taxawaay boo xamante bi mu mat sëkk la boo xam ne da nga leen koy nangul moo waral boobaak léegi euh, fu mu toll rek lépp lu tàbbi si loxoom rek nga jëmm seere faal mu indi jébbal ko sëriñ bi ñëwoon na fi ay yoon si koor gi andi fi ay nag aki gilem ak i addiya moo del siwaat nii nag tey andiwaat ñeen fukki junni yi Ah, yoo xam ne da koy jébbal sëñ bi ak ak ñetti nag ñetti nag waaw yoo xam ne indi na ko waaw ah, lépp nag eh, si barkeb sëriñ bi rek la ko amee murid yi nga xam ne daal ñoom la àndal liggéey bi ak ñi nga xam ne dañu rafetlu ab liggéeyam muy ñi gëm see rafaal te te di bëgg si kàddu yi muy jottali eh, ci sa ndigal loolu lépp rek si sa ndigal la ko amee waaw mu xam ne nag lépp nag yaa ko yellool yaa ko moom lu ñëw rek mu indi Euh, jox ko sëriñ bi ndax moom du du téye diw lantinoor moom du téye diw da mel ni waxam jooju nag méngoo na ay jëfam waaw ndax waxtu wu ne day lépp bu jógee fii lépp boo ko ñaanalee bu génnee lépp lu tàbbi si loxoom rek jàpp na ne sëriñ bee ko moom waaw da am am am indiwaat ko ba jébbal ko sëriñ bi ñaanal ko baax nag moo ñi mu àndal ñëpp liggéey bi borom kàttanal leen waaw ba fi la bëgg a féete daal nu nu mate sëkk rek waaw Fall waaw ñu ni Fall waaw waaw waaw waaw te xamal ne maa ngi leen di liggéeyal liggéey nañu waaye seen bopp lañ fi wallaahi ngir gi lépp lépp lu ñu liggéey hmm. dañ ko barkeel alhamdulilah bokk moom wallaahi fa lépp lu bokk moom waaw na ko téye baax na ko téye baax waaw tam ñu yor nañ ko téye baax wallaahi barkeel alhamdulilah lépp yéen nañ ko alhamdulilah fa alhamdulilah fa waaw de dégg nga ko waaw sëriñ bi nee na xolam sedd na si yow baax a baax sedd na si yéen si liggéey bi ni ngeen ko taxawoo nee na xolam sedd na si bu baax a baax waaw ah, nee na li ngeen jëf nag li ngeen di jëf lépp nag ne ne ne nee rek koy jariñoo waaw ah, ndax nee na seen bopp rek ngeen koy jëfal ah, koy jëfal sa bopp nag nee na doo tàyyi doo sonn waaw njariñ dana dal seen kaw yéen koy jariñoo waaw nee na di yéen koy barkelo kon nag loolu taw feex la ak xel mu dal la liggéey bi daal sëriñ bi nangul na leen ko wax dëgg yàlla waaw ndax doxin moom waxtu ne boo ñëwee kàddug sëriñ bi genn rek la waaw ay jant ak ngërëm ak fedd li taxawaay boobu nga xam ne am ngeen ko waaw si wetu Cheikh Rafal fexe ba liggéey bi niñ koy waxee rek du laal suuf benn yoon yow nag si loolu rek nga ne nag fexe ba liggéey bi ñu aj ko nii ko sëriñ bi waxee yóbbu ko fu sori foo xam ne fii dina méngoo liggéey bu Cheikh Rafal ndax sëriñ bi nee sant na la gërëm na la ñu ngi lay ñaanal baaxit nag ñu doon na leen te wéral leen te ubbil leen nag tawfeex xéewal yu yaatu ngeen jekku liggéey bi nu ngeen ko bëggee barkeb Seera Fall ay jàmbaar ngeen lool wax dëgg yàlla waaw waxtu wu ne daal li ngeen di wax wutewul ak seen i jëf te yéene ji ngeen am ak pas-pas bi sëriñ bi xam na lépp nag te waxtu wu ne mi ngi koy rafetlu ak di leen ñaanal kon nag moom nu tàbbiwaat si liggéey bi rek waaw waaw waaw Mm, sant waaw moom ñu waale ni ñëpp. waaw waaw bu dee day yow mi jiitu. Mm-hmm. si liggéey bi ak ñi ngi ko àndal ñëpp nag. ne cant gi day tàmbulee si yow. Mm-hmm. jëm si mboolem rek. koo àndal liggéey bi mm-hmm. ngeen di ko taxawu. nee na xolam sedd na si yéen lool. ak cantam ak ngërëmam egg na si yéen bu baax a baax. nee na xolam sedd na waaw mbég na lool wax dëgg yàlla ñu leen di ñaanal bu baax a baax rek day gën a baax rek nag kanam la jëm rek day gën a baax rek waaw day gën a baax rek murid yi wax nañ ne waaw xam nañ lépp loo xam ne mi ngi bàyyi ci ñoom mhm. tàbb ci loxoom mhm. rawatina man mii nga xam ne mën naa am naa ci seere mhm. saa su nekk may ñëw fi moom bu may ñaanal may dellu kenn nattable na mooy Cheikh waaw kenn nattalu ndax kenn ku ci nekk yëg nga ne. waaw Cheikh Ibrahima sa jëm. ndax saa su nekk boo jugee fii. booy dem booy ñëw. da nga mhm. indaale loo xam da nga xam ne yokk nga. Mhm. da nga xam ne itam Cheikh Ibrahima defal na la loo xamante ni bii. Mhm. la nga tegoon ci loxoom. fulal na la ko ndax sëriñ bi boo ko yéenee benn. ñaar la lay jox ba ak ba mu feeñ na ndax la Cheikh Ibrahima ci jëmmam. Euh, loolu dama ne su ma ñëwee dana am ko nettali. ndax loolu kat am mag ña ma daa nettali ñoo ma ko wax. Cheikh Ibrahima mas naa toog fi njaareem génn kurus. ne lii lu mu mag ne cell mun a ténge na wax am ku ne kurus mu ne waaw kay doom ab laax boo ko ràccee na ku xiif te borom laax ba tërëwul te nga xiif loo yàgg a taraxasu te bu ñuy laaj te nit laaj te ngeen xam lu ngeen di tontu lu mu ngeen mag na kurus mu ne lu mu baaxoo doon ci am ku ne téeméer keneen téeméer Cheikh am ku ne juróom ñeent fukk juróom ñeent mu ne lu ci gën a wér mag ñi na téeméer mu ne boo koy wér ba jot per bu xaar te tàqalul ak per yi mi ngi ci nas bul ko jël ndax boo ko jëlee ba gëlee sëb mbànki boobu mi nga wax gannaawam daana su ma fi jógee bu leen ma jukkat bu leen ma jéggat bu leen ma bu leen ma jàmbar ku toog de man bu leen ma ko lu dugg ci biiram ko am ku ne ah ca jotaay mu ne gees naa doon ko xaj bay ma barak fall nako bay mudu gay maro mu nako lutax nga ne ah mu nako kila fi togal bu nak bay mudu gay ndax mo ñu leral la tax cheikh ibra hmm. top sil ma leral la du mu te abe rero ab suñ koy door nga koy at loy wax hmm. mu nako xana bul ko gañ fu deew mu buy sab dof sax man ibra fall ma jogu mu togal ma ci sab say ba daan fi eh, suuf eh. dal leen sang bam set tek ci kaw set ndem togal na ci laaj joté cheikh kum doyul ko laaj nokoy jox <laughs> bu jox ko togal señ jox leen bu fay leen ko mom daana fi ma tok bis penj ku fi tok bu diglé def leen su teree ba leen su laajee jox leen su wootee wuju leen Cheikh Ibrahima ne su xamul ma xamal ko eh. moo feeñ ci jëmm ji su eh. amul ma amal ko moo eh. feeñ ci jëmm ji su mënul ma manal ko maay fay te du ma jeeral kon nag gëm nañ ne Cheikh Ibrahima Fall ko fi bàyyi te moo koy def loolu loolu moom ñun ñi nga xam ne ñu ngi wër di dem ak ñëw teg nañ ci suñu bët ndax wax <laughs> Ah, kon nak lolé ñi ngi ñaan yalla mu yag ci loxo amin barké wa tay li bëgg bëgg moy bëgg bëgg cheikh mohammed muntaha mhm. xam nañ ni señ am di benn yéene képp la am moy mhm. sotle ki fi nekkal señ touba mhm. ci ndam lu reuy li lool rek la tek bëtam wax na mako fi ci bir nek digënté boba ak légui dem matugo at waye ku ne xam na bal yim fi door kenn su ko gis ci adina wallahi deug té lool samam dana la gëna sam dana la gëna amin fall amin fall ndax señ salif fatsaw moma ne bay ibrahima ci am tok fi njaarim ñu tok fi mu ne seen mama tok fi ne señ bambu lu bëgg man naam jëm ji ne fofu la tek bëtam motax murid yépp nak am yéene diine mhm. ci sotle ko ci liggéey noo ngi ñaan yàlla nga yàgg fi lool amiin Fall amiin Fall fan bu gudd moom ci sa loxol maam la nekk yàlla na <laughs> yi murid yi joxe seen addiya di ko jaarale si moom muy agsi fii murid yooyu yëpp noo seere ni waxtu bu nu ñëwee si sëriñ bi bu nu delloo day mel ne daa am geneen ubbiku gu nu am maanaam li sëriñ bi wax ni ku ma defal benn ma fay la yaar wala fukk moom day day day day mel ne bal bu nu taal rek dañu si gis seen bopp moo dañu gëm ni xam nañ ni sikkuuñ ni léegi loolu Cheikh Fall amoon rek moo feeñ si jëf ji waxtu wu ñu jë waxtu wu ñu jëfee rek mu li nga waxoon léegi ne ne lu lu waay jëf yaa moom lu waay jëf yaaku moom yaa koy jariñoo ñoom ñi dafa feeñ ci ñoom nii lépp lu ñu jëfal sëriñ bi bu nu génnee rek dañuy gis ni sëñ bi da leen daal di fay lu ëpp loola fuuf nu xam ni kon liggéeyub sëriñ bi nangul na leen ko waaw moom nag li mu doon nettali si Cheikh Ibra Fall loolu moom moom sëriñ bi dégg na ko baax a baax ñaanal leen rek Fall nañ am kattan guñ la mën a liggéeyale saa su ne waaw li nga bëgg daal liggéeyal ko Cheikh Modou xaa ah bëgg nañoo bokk si murid yi nga xam ne danga leen di tànn nag waajal leen ngir nu fes si nag fes si liggéeyub sëriñ Tuubaa boobu yi waaw ñaanal leen Fall jërëjëf Fall jërëjëf Fall amin amin